xam nga dañu toll ci moment bu ñuy wax critique ndax euh, boo seetloo ay weer a ngi nii muy président de la république muy gouvernement bi muy askan bi ñëpp a ngi taxaw di xeex mbas mi nga xam ne moom mooy Covid 19. mbas mi dëgg la ci wàllu wér-gu-yaram la mais tey ñëpp àdduna yëpp dañu toll ci li ñuy wax euh, gannaaw bi ñu taxawee xeex pour. Euh, wàllu wér-gu-yaram ñu taxaw aussi pour que lépp loo xam ne président de la république ak gouvernement bi jot na ko tabax boobu ba léegi te mu doon ay résultats yu ñu gis am na ay résultats yu probants yoo xam ne nit ñi dañ ko dund 2012 ba léegi kon tey bu ñu ñëwee ba nga xam ne loolu yëpp menacé na jàpp nañ ne eh, xeex bi nga xam ne war nañ ko continuer di xeex ci wàllu cadre relance naam feebar bi mu ngi fi mais dañu war a continuer di tabax gën a taxawal li ñu tabaxoon ba pare mottali ko mu jëm kaw loolu kenn ku nekk daf ci am wàll dëgg la président de la république moo ci jiitu def na li mu war a def gouvernement bi topp ci def li mu war a def mais gouvernement bi day nekk ministre bi ak ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom liggéey boobu looloo tax tey ñun waa ministère de la microfinance ñu ñëw ak suñu agent yi nekk ci ministère bi yëpp wan leen ne yoon ba ñu jàppoon tey nga xam ne rëdd nañ ko ci lettre de politique sectorielle bi mi ngi nii objectif yi ñu am ak défi yi nga xam ne am nañ ko ak fa ñu war a jaar ñi ngi créer conditions yi mais loolu lépp bu weesoo kenn ku nekk ci ñun daf ci am wàll ak taxawaay bu mu war a am donc njàngat yooyu ñu jël ci ñu fexe ba soppar ni ko mu doon opportunité yoo xam ne dinañ ko mën a sottiwaat ci dundu ni askan bi pour loolu ñun ci ministère bi def ci am euh, fonds bu am solo bu ñuy wax FONAMIF bu ñu taxawal nekk di ko tabax te baax na aussi euh, ñu bokk xam fan la ñu jëm bokk xam Euh, vision président de la république fan la ñu war a jaar pour mu taxaw te gëm naa ne mën nañ ko ndax euh, tey si tey euh, suñu ne suñu jàppee ne juróom-ñaari at ci ginnaaw ñi ngi tabax tabax bi di jëm kaw feebar ñëw gàllankoor ko te ñu gis ne boobu ba léegi ñi ngi tabax mi ngi yéeg kon li ñu war tey mooy kenn ku nekk seet lan moo war a doon sa taxawal